asalaamaaleykum Sénégal yéen a ngi jàkkaarloog Rosso artiste rappeur Rosso ñu ngi lay nuyu. Euh, salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu internet Sénégal yi di nuyu Sénégal yëpp du nuyu képp nga xam ne xam nga Rosso yaa ngi koy bégee donc euh, Rosso la aka Rose the Nit from Grand xam nga nekk si game bi depuis euh, début 2008 donc def boobu léegi ñu nekk si jot nañu génnee mixtape avant l'album en 2012. donc euh, ba 2015 ñu génnee album indépendant donc ñu nekk voilà vraiment si rappeurs yi nga xam ni bokk nañ suñu njëkk a tax rap Grand Yoff xam nga di di di am benn niveau bi di évoluer donc voilà mu nekk suñu fierté donc voilà Rousseau moo nekk noonu naa ko bekk su na ewan nga jëga am na bi yàlla na si def barke soo jubloo def lu baax bul si mës a tardé dund nañ lu gën a tardé jaar jaar yooyu yëpp tax ma gën a bardé tey lu tax ma jël la def la soxna day lu baax ndax soomee muñal du ma sonn nit lu taax mu ñeme la yaa ko moo tax doon sa jëkkër nekk nga di maamu oon wax naa ni tey ji lépp lu am daa nekk ci man lu dëggu la ndax xoloo ci am am nekk sa gendarme et pourtant j'ai pas joué mais j'ai trouvé l'as de cœur avec une grande nekk naa ko bekk li su amee lu ma doon xare année I want you girl sugar you want me yal na seeni barke amee nekk naa ku bég tey li su amee lu ma doon xari àndee waaw Rosso ñu gis ne temps nga génnee benn clip bu bees nga ciy rendre hommage sa jabar ñu bëggoon xam lan moo waral loolu. Euh, déjà je me remercie ci question parce que c'est quelque chose boo xam dafa intéressant donc euh, pour wax si loolu noonu moom mooy que euh, je pense que mariage dafa nekk lu sacré surtout ñun su ñu nekkee ay ay jeunes mu naa ne ay jeunes quoi mag la ñu certes donc am nañu jabar et tout mais. ay jeunes la ñu comparé à peut-être benn tranche d'âge bi quoi donc euh, mu nekk lu lu lu jafe tamit surtout ñun ñu nekk ci milieu bi nga xam ni ci ay ay ay ay artistes la ñu nga xam ni tey da am sa jabar bon certes lu nekk lay dégg lu nekk lay gis que soit mu nekk voilà ci famille que ce soit mu nekk ñi nga xam ne ñoom ñu ngi ci que soit mu nekk à travers ñoom fan affaire yooyu noonu quoi donc loolu yaakaar naa soo amee jabar boo xam ne mu ngi lay muñal ak ko xam ne bëgg nga ko nga mu leneen tey sa àdduna da jël pour def ko si donc yaakaar naa mënoo lu dul di ko sargal quoi donc mu nekk affaire boo xam ne donc voilà daf ma daf sama xol laa ko waxee sax mu koy way son bi da ngay déglu sax nga xam ne carrément ko voilà c'est des mots yu nga xam ni dafa dëggu isa xama donc bon certes ñun ay artistes la lu ñu nekk artiste moo tax ñun ñu koy def à travers ay way mais keneen ak keneen mu ngi koy def si ay yeneen gestes yu nga xam ne peut-être que si domaine la quoi donc mu nekk loo xam ne voilà pour man c'était un acte vraiment naturel loo xam ne c'est tout à fait naturel juste que voilà juste pour wax lu dëgg la woon moo tax mu nekk. lan moo tax Rosso teel a am jabar. pour man juste question de responsabilité la rek man dama yàgg bëgg responsabilité isa xama dama yàgg responsable. donc euh, pour man euh, bon dès l'instant que lépp lu nga xam ne ñu ngi soxla mi ngi fi woon rek ku nga war a takk mi ngi fi yow yaa ngi fi isa comprendre te amul dara loo xam ne moom moo la ko war a mën a takk pour a pas de raison à ce que ngay xaar quoi isa xama donc c'est quelque chose boo xam ni déjà ma ko jusque là voilà tout si gis donc vraiment c'est vraiment xam ni vraiment voilà quoi mënu ma ko regretté wu ma ko quoi à travers clip bi da ngay lancer message jeunes yi ñu takk jabar ou bien euh, message yi dañoo bëri si loolu noonu parce que soo xoolee si clip bi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi énumérer ay affaires yu bëri yu nga xam ne peut-être ay comportement la yoo xam ne peut-être que maag sama jabar sama jabar noonu la mel wala ay comportement wala ay actes yoo xam ne tey sama jabar daf na ko wala man daf naa ko pour moom isa xama c'est pour wax ni que euh, des fois lu dëgg lu dëgg soxlawul nga koy nëbb wala affaire yooyu noonu quoi man pour man su dëggoo rek dëgg na quoi donc euh, pour wax ni tamit que message bi c'était pour ñi nga xam ne tey dañoo am soit même su dee takk ko ñu wala ñi nga xam ñi nga am ñoo xam ñu ngi prévoir pour takk leen et tout am na benn comportement boo xam ne moom la ñu war a mën a dawalee quoi donc pour man su ma demee ba koy way ça veut dire di nga sentir ne man happy naa te su ma happee ça veut man am na message yoo xam ne maa ngi koy wax si clip bi la soo yoree góor ni nga ko war a mën a toppatee soo yoree jabar tamit mënoo dara lu dul ko isa xama donc suñ jabar yi dañuy muñ donc chapeau à ma femme déjà xam nga yaakaar naa ni lu ma waroon wax lu a wax yëpp wax naa ko si clip bi isa xama donc certes am na dund donc voilà loolu la message bi loolu la mooy vraiment tax amul amul âge quoi. dañu remarqué ni jeunes yi taxatuñ jabar. non pour moi pour moi nag c'est pour man c'est le contraire parce que jamono jii nii je trouve que y' a beaucoup plus de jeunes yi nga xam ne ñooy takk jabar que sax mag ñi quoi parce que am na ñoo xam peut-être que dañuy am benn expérience boo xam ne soit que soit sur Facebook wala koo xam ne xamoon naa ko kii ma di que voilà man damay takk jabar wala koo xam damay annoncé ne voilà may waaj takk jabar donc pour man benn phénomène la moment bii nii quoi phénomène la parce que gars yaa ngi takk te c'est quelque chose de bien parce que dina la permettre dina la éviter loolu bëri di nga si jaamu yàlla aussi quoi donc pour man c' est contraire jeunes yi ñu ngi takku vraiment ñu ngi takku. waaw léegi jeunes ñu ragal mariage ban conseil nga leen di jox. saa mariage neex na de. waaw yaakaar naa ne ki nga xam ne daf ma xamoon balaa may balaa may am jabar ak koo xam ne daf ma xam léegi dina xam ni yaa benn différence bu bëri bu amoon quoi. que ce soit au niveau voilà vraiment physiquement que ce soit si xel que soit si voilà waxin xam nga da lay yar si lu bëri da nga di nga màgg si lu bëri donc loolu noonu aspect bu ndaw la su dul dara waaw xam nañu bienfait yi nga xam ñoom ñoo si nekk suñu diine lu nga xam ne moom la wax si takk jabar isa xama donc mu nekk affaire yoo xam ne man lu dul képp ku ma wax ni waaye dama yor benn cokoro boo xam ne gars dama bëgg kii amee dama lay def sa waay soo mënee takk takkal quoi certes nag c'est pas donné à tout le monde isa xama donc takk tamit dafa sacré ba nga xam ne nit koy takk na nga xoolaat bu baax exactement tamit kan ngay takk quoi donc c'est quelque génnewu la si quoi pardon donc euh, mu nekk loo xam ni euh, vraiment waaw man moom ñëpp laa koy conseillé quoi ñi nga xam ne amuñu jabar moom sa waaye waaw loolu mooy mbóot bi quoi dañ takk quoi. waaw léegi Rosso wax ñu lan mooy projet yi. bon euh, déjà depuis bu ñu génnee album bi le 15 août 2015 dama xawoon daf benn break tuuti si côté média yi parce que album bi ak importance bu mu amoon peut-être ak style album bi il fallait ma. jël temps may gars yi déglu mais ñu nga xam ne découvrir ñoo Rosso ñu jéem a découvrir Rosso loolu il fallait benn temps bu xaw a gudd tuuti pour gars yi mun ko découvrir quoi parce que am na ñoo xam ne démb la ñuy de man ba jusque ba semaine passée des fois nga gis ko xam ne waaye gars yi déglu naa sa album bi bàyyi album bi dof na alors que léegi mu am un an bu ko génnee donc objectif bi loolu la woon balaa may def ay affaire fii peut-être que def ay émission fii wala ay kii affaire yi noonu important mooy que na gars yi consommer affaire bi suñ ko consommer à travers des émissions à travers lu nga xam ne programme yi nga xam moom laay def si laay mën a expliquer ne voilà lii lii moo nekk raison bi donc album bi indépendant la tudd donc bu ñu ko génnee euh, le 15 août passé donc nii nii nii vidéo bi lañ doon xaar mu génn comme ça ñu mën a prévoir ñu mën a programme def euh, tournée yi que soit mu nekk rajo yi que soit mu nekk télé yi donc euh, sinon si kaw loolu noonu mooy indépendant show birthday bi dañ koy def à Grand Yoff le 15 août si côté monument bi c'est non le du du monument donc foofu lañ koy defee mu nekk benn concert boo xam ne voilà plein air la xam amul entrée amul dara xam nga donc ñu may ko waa Grand Yoff donc pour l'instant loolu moo nekk programme nga xam ne moom moo moom moo taxaw quoi. lan mooy sa mot de la lan ngay tàggatoo ak internet sénégo point com. donc di rafetlu liggéey bi rek ah maa ngi koy wax sànq di rafetlu liggéey parce que yaakaar naa seul le travail paye ñun ñu ngi fi woon depuis début sénégo yi xam ba jusqu'à présent. bon gis nañu peut fu mu fu mu xam ne moom la toll te lu nga xam tam moom la mun a am sax peut-être ba léegi nit ñi conscient guñ ci quoi isa xam donc di leen remercier di wax ni que liggéey mi ngi rafet na gars yi na gars na gars comment dire euh, waaw na gars yi ne job rek parce que internet yi pour man ñoom ñoo leen war a remercier quoi parce que c'est pas nekkul loo xam ni dafa yomb nga toog sa gàlle nit ñëw jox la information wala mu jox la benn artiste boo xam ne bu nga xam lan lay wax da ngay toog sa gàlle rek yor sa connexion mënoon nga nekk si leneen quoi is xam donc mu leer la ni peut que gars yi lu ngi si lu ñu lay apporter si information ñoom en retour sax du ñu am loolu fekkoon financièrement la quoi donc euh, di remercier gars mu nekk liggéey bu rafet boo xam ne franchement dañ koy dañ koy dañ koy rafetlu is xam di wax gars yi scotché si Sénégal bi waaw di leen wax euh, one love quoi.